moom Alioune Seye ndeysaan ñaari xale ngi noonu at maa ngi ñoom li nangu at li lamb bañ ndeysaan ndeysaan waa Gunaas kenn nelootul waaye waa Thiès tamit kenn nooyeetul ndeysaan mais Alioune alam daa waaye Modou Anta mag la si laay goote ko kabar ko ànd ak mocc na tànk ya ndeysaan ma ngay jat moom Alioune Seye moom Alioune Seye ma ngay jat ndeysaan ndeysaan Alioune Seye 2 at Modou Anta Modou Anta dafee mujj si défaite Alioune Seye mujj fi si ñaari victoire ndax nee naa la Modou Anta fii la ko jën kaay daane woon waaye Alioune Seye la daane woon Zos fii la daane woon waaye combat mag ñàkk jëriñu fii la nekkee woon sans verdict bëre wuñu woon ñoom ñaar ñaari xale yaa ngi noonu di lewtoo ndeysaan nee naa la ñoom ñaar bokk nañ Moussa Ndoye ñoom ñaar ñëpp bëre nañ ak Moussa Ndoye ndeysaan Alioune Seye bëre na ak Moussa Ndoye Iba Mar waaye moo danta bëre na ak Moussa Demba Diop ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu di lewtoo ndeysaan ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ndeysaan Leewtoo bi sori na trop Leewtoo bi daa sori trop ndeysaan ci ñaari xale yi Leewtoo bi dafa sori trop ndeysaan arbitre nee na ngeen bëre arbitre nee na ngeen bëre ndeysaan ndeysaan nee naa la distance bi dafa sori arbitre bi woo na leen ne bëri leen ma leen a jox avertissement la bu ma ñëwaatee dama leen di avertir ndeysaan ñu ngi lew doo ñoom ñaar Modou Anta ak Laay Goote wala mu ne Modou Anta nekk Maxi Laay Goote ndeysaan waaye Alioune Seye nekk Lak si Alamda nee naa la kii magi mbër waaye kii rakku mbër la ndax xoolee lay gote ma nga sa cumukaay ga waaye alam daa ñàkkul ci cumukaay ga ndeysaan arbitre bi nee na ngeen bëre ñaari xale yaa ngi saan ñoom ñaar ñëpp laala nañoo ak Moussa Ndoye Alioune Seye laala na ak Moussa Ndoye Modou Anta laala na ak Moussa Ndoye ndeysaan kon ñoom ñaar ഇവിടെ പ്ലാസ്മാടെ പടാഞ്ഞു ഞാൻ ñoom ñaar ku ne am nga avertissement ne am nga avertissement ñoom ñaar ñoom ñaar ku ne am nga avertissement ñoom ñaar ku ne am nga avertissement ñaar ku ne am nga Ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar moo daan tane léegi doom yàgg mu dagg léewtoo bi moo daan tane léegi doom yàgg mu dagg léewtoo bi moo daan tane léegi doom yàgg mu dagg léewtoo bi moo daan ta Ndeysaan léewtoo naa jege léewtoo bi ñaari xale yaa ngi noonu lëbdoo bi gën naa jege lëbdoo bi daan fi dolli nag seen loxo yaa ngay laalante seen loxo yaa ngay laalante fi dolli nag dolli seen loxo yaa ngay laalante seen loxo yaa ngi laalante daan seen loxo yaa ngi laalante ñoom ñaar bu dolli li ngeen doon xas-xas loo ay bés ko xas-xasloo ay weer ñu toll nii dara desatu si ndax Alioune Seye waxoon na ko signature ba danaa la dóor ba ca ba moo daante ne ko di nga xam ne pomme de moromu néew lu raw la ma defoon yi gën si ñor dinaa la ko def Alioune Seye ne ko la ma defoon sos at Issa Pouye danaa la ko def at baate na leen kaay leen saan at waat na leen nee na ngeen bëre waat na nee na ngeen bëre at bi na ngeen bëre nday saan saan Alioune Seye moo ñu woon ginnaaw Alioune Seye moo ñu woon ginnaaw moo tax lool Alioune Seye 2 ak Modou Anta Alioune Seye 2 ak Modou Anta Alioune Seye 2 ngi dox si kaw Modou Anta ngi dem latéral Alioune Seye 2 ngi dox si kaw Modou Anta ngi dem lewtoo bi bar na nag fi ñu toll nii lewtoo bi bar na fi ñu toll nii Alioune Seye mépp na Modou Anta replié Alioune Seye dafa mépp Modou Anta replié Alioune Seye deux dafa mépp mu daan tere pilier naa la ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan mu daan cokkaas na mu daan da cokkaas na gaare dox udal si ko Alioune Seye ngi doole ko dox mu daan da ngi tap tek Alioune Seye ak mu daan da eh, mu daan da ma go droite Alioune Seye def na trait de corps ndeysaan ndeysaan Alioune Seye 2 at Modou Anta Alioune Seye 2 at Modou Anta waaye Père Lirou Père Lirou gi bëre si ginnaaw Alioune Seye ngi direegu Alioune Seye door na Aliou xeex na ñoom ñaar laa ilaa Aliou Seye jël na mu dalu Aliou Seye jël na mu dalu waay waay Aliou Seye jël na mu dalu dafa jël mu dalu laa ilaa Aliou Seye daa jël mu dalu mu dalu Aliou Seye jël na mu dalu mu dalu laa ilaaha illallah l'homme de Bicikao kooku ay Aliou Seye deux dina ko gëm boo ñibbee gëm ko oh ah waaye Omar Sané wala Omar bu Cobra dañoo tooñ waliw <laughs> ndeysaan Alioune Seye dafa dina mëninam fii la dóoree Issa Pouye mu daanu fii la dóor Zoss mu daanu tey mu dóor fi Modou Anta mu daanu Modou Anta marqué waat na deuxième défaite am tey Modou Anta marqué waat na deuxième défaite am Modou Anta marqué waat na deuxième défaite am